amati nañu mbégte dajati ak yéen chaîne chaîne de télévision la 7TV ñoo ngi fii ci Touba Mbacké 18 safar 2023 ngir màggal bés boobu nga xamante ni moom moo di màggal Touba euh, di bésug dem Cheikh Ahmadou Bamba ci exil boobu nga xamante ni euh, moom la doon dem ci géej gi mu ne woon bu delsee ku di sama mbég di seeg mbég rek nang ma ko euh, màggalele te santale ma ci yàlla suñu borom 7TV ànd ak équipe bu takku lool ngir ñëw màggal ko fii ci Touba ñu nekk fii ci Daaru Marnaan nekk suñu kër Serigne Serigne Modou Abdallah moom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 هماني هلا ماهن مع الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن مع الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني ألا ماهن مع الأبس والسفر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 على من بمكتم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ni ñu leen ko waxee ci suñu njëlbeenu kàddu ñu ngi fii ci Daaru Marnaan dalati ci suñu kër sëriñ Euh, koo xamante ni mën nañoo wax ne bi 7TV ubbee ak tey euh, depuis 2018 màggalu Tuubaa gu jot fii dañuy dal ci këram euh, mu ñuy bernde dalal yu jàmm ba ni màggal gi di jeexee tey ñu ñëw ngir ziar ko feddali suñu kóllëre suñu ci moom ak suñu taalibe di amaat mbégte bu baax a baax a baax fekk si ko fii ci këram ñu di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax sëñ Modou ñu ngi lay ziar di la joxaat wàccuwaay wi gën a kawe ci yow di amaat mbégte ngir ñëwaat fii sa kër jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu leen di delloo nuyoo am mbégte di ci santaat yàlla ndaxte ngeen fi daal ñun ci gën a bég ndax loolu sëñ bi bëggoon sëñ bi dafa waxoon yéen yàlla tawfeex ngeen nekk ci dëkk bi ñu jug leen fekk si bu da ngeen leen teral ci lépp lu ngeen man ci lépp luñ ko bëggee ci lu dëppoo ak kon loolu ñu itam yéen te sëñ boo ngeen war a wusi waaye bu ngeen wusee tamit teraanga yi ngeen la war loolu yàlla def na ko ci barke Sëñ Tuubaa kon lépp manqué rek da nga xam ne képp ku ñëw muy góor di jigéen mag di ndaw na nga ko weex taw beeku mel ni ko bàyyi ko sa kër ku ci dalal bu ko wuteel sa kër la soxla bu la nga ko ëppalee su la ko laaj loolu dina ko wax peeg seen kër benn la digée ñi ngeen fekk na ci bokk noonu ngeen ci bokk bu leen cab daal lu ngeen defaraat ñu leen daal ci jàmm di rafet lu ndax am gën ngeen def ko te dëkk bi yaatu na te ma ngi naan daal yu dàq bi ndax xam naa ne dëkk bi def nga xam naa ne kon kon la rek moo leen ci bàyyi itam loolu dëgg ci baax الذي أنوم عبدا jaale suñu parce euh, que yéen mën nañoo wax di addiya boo xam ne xeeb nañ ko lool euh, suñu directrice générale jox na ko muy Maïmouna Ndour Faye ngir euh, feddaliwaat kóllëre ngir feddaliwaat ak taalibe waaye ngir gën a sàkku ñaan ay xéewal yoo xamante ci berne bi muy lu ñu ko teguñu leen ndax fii moom liy teral teraange itam am nañ xol parce que ne delluwaat ci nit ñi ndax Sëñ Tuubaa woote ngeen wuy xam ne itam loolu la ñu képp ku ñëw ñëwal ba sa taal te moom mi ko sax doo xam ko mu jóge kon loolu moom teg ñu wet ko jëf ju rafet la duñu béje la yàlla ko yàlla nangu ñu ngi sant directeur bi may mën a ngi koy képp ku fa nekk góor ak jigéen personnel lépp kenn ku ne la nga bëgg sa xol yéene ko sa xol yàlla na ko yàlla defal ci barke bis bi ak borom lépp lu ngeen ragal tam a àjjuma la ci màggal gi li ci desati bariwul amaana gan yaa ngi ci yoon bi boo amee ay kàddu yooy dénk mbokki taalibe ci màggal gi loolu dama ta nekk bu noppee dëkku daata ma nga jàng ndax boo xoolee jafinam ak doxinam waxinam doo gis dëgg leen lu gën alxuraan ak sunna moo tax ñu wax ne mag ñi bu noppee tax ña nga jàng leen leen la nga dégg na ci dañoo war a fekk yow wax gi dëgg la ndax am na koo xam ne moom wax ji rek lay dégg waaye boo xoolee sëñ bi fa awet xam ne daanaka ma ngay wax ndax bu fekkente ne toujours ma teg tànkam ci saatal mu saqi loolu mooy moo ci am solo kon ñi ñëw tam ñu gën a teg li war may dëkk bi sëñ bi leeroon na ko ñëpp dégg ko ñu ngi ko dénk muy waa kër maam Cheikh Ibra Fall di Baye Fall ñu ngi koy leeral te wolof day wax ne aada dëkk kenn du ko tekke bu dul loolu loolu aada dëkk kenn du ko tekke maa wolof yàgg naa ko loolu te sëñ bi fam lam bëgg ak lam bëggal boppam bañal ko boppam rek la ñu bëggal bañal la bëggal ñëpp bañal ko ñëpp mooy képp ku fi ñëw rek jëlëf ñëw defaroo fi yokkoo fi ndax wolof day wax ni barab bu ñuy defaroo ko fa yàqu du neex a ko loolu rek la sëñ bi dawal mbooloo kon ñu ñëw ñu bàyyi xel ci loolu. jërëjëf ni ñu ko waxee Serigne Modou Abdallah moo ñu dalal fii ci Daaru Mannaan euh, moom Serigne maam Thierno moom maam aw euh, Awa la am nañu mbégte bu baax a baax di wax ne mbokku téléspectateurs yi nañ ñu topp ñu digtal leen lépp loo xam ne aju na ci euh, màggal 2023 fii ci Touba Mbacke. lu jiitu loolu dañuy tàggatoo ak Serigne bi mu defal ñu ñaan ñu daal di mën a tàbbi ci liggéey bi jërëjëf Mbacke Balla. الله الذي باهت بي من ألو مدر رباي في إخدام خير الورى بدا بسم الله الملوء بلا taalibe ñu ngi leen di nuyuwaat yeesalaat suñu nuyoo ci yéen eh, ni ñu leen ko waxee tey ci suba ba ñu jógee foofu ca Daaru Minam ca kër seen sëñ Modou Abdallah ñëw nañ fi nga xamante ni nag moom moo di ay Aynu Rahmati ñëw ci nga xamante ni euh, ndox la moo xamante ni dañuy gis murit yi taalibe yi dañuy jóge fu nekk ngir ñëw fàggu si ko bëgg nañoo xam ana lan moo ko waral euh, teen bi lan mooy taarix bi teen bi kañ lañ ko fi gas am kan moo ko gas ndax euh, ñu ngi ñuy wax ne sax Serigne tubaab moo ko tàmbali ci loxoom waaye da ko joxoon kenn ci ay soppeem wala ci seex yi nga xamante ni àndoon nañu ak moom muy Serigne Ibra Sarr fekk nañ fi kenn ci ay sëtam Serigne Khalil lay wuyoo moom la ñu fas yéene waxtaanal ngir mu xamal ñu lan mooy taarixu kër gi ku ne ay nu raxmati ne Cheikh Abdou Lahad waxtaan ana lan moo dugal loxob Cheikh Abdou Lahad ak ban yéene la amoon ci kër gi di ay ñu rahmat yi dañ ko waxtaane yaatal ko ba mbokki téléspectateurs yi ñuy topp dara du leen ci réer euh, nañu yegg ci biir Cheikh Issa mi nga xamante ne mooy suma caméraman moom laa àndal mu digtal téléspectateurs yi waxtaan wi waaye itam dugg ci biir kër gi wan leen yenn yi nga xamante ne umpoon na leen ñu gën koo xam Cheikh Issa mi dem Magal Touba 2023 mbokk yi ni ñu leen ko euh, diggee ci 7TV daañu leen toppal euh, màggal gi euh, dugal leen ci biir dëkk bi ni ko boroom sañce waaye lépp loo xamante ni rek yéen a ngi ko fi gis ci biir Touba te amaana xamul leen taarix gi wala dëgg-dëgg li nga xamante ni moo ne ca biir daañu fexe mu leer leen ci télévision bi di 7TV ñoo ngi fii ci Aynu Rahmati fekk fi suñu sëriñ suñu kilifa di suñu wayjur mu doon ki nga xamante ne nag moom moo yëre kër gi yore kër gi nga xamante ni moom moo di Aynu Rahmati teen bi ne fi daañu waxtaan ak moom ngir mu xamal ñu lan moo waral ndox mi ak lan lañu sante kër gi muy sëriñ Khalil Sarr mu doon xalifa Baye Serigne Baye euh, Serigne Sarr euh, moom lañu fekk si fii toog ak moom ngir sëq ak moom waxtaan ñu ngi koy ziara bu baax a baax sëriñ bi di la dalal ci suñu télévision 7 TV. auzu billaahi mina sayxaani rajiim wa rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun barki borom Tuuba yéen waa set tv am ngeen lu jafe nag fi ñu toll. ñëw fekk ma fi nii rek ma toog ne ci ay yitte jógaguma ngeen daal di mën a jël seen rapport def seen rapport sax wàññi ko yombul. léeg-léeg gis ñu may téléphoné sax damay circulation du ma ko may waa ma yitte ma ko may ba damay dañuy mujj dem te sëriñ bi dafa bind circulaire bu leer bàyyi fi ne leen ay nu ramati bu ba te kenn waxati lu muy Khalil Sarr miñ ko teg ci loxoom ndax loolu dafa bari euh, histoire yu muy yàq day changé histoire ndax boo fekkee fee ñu naane ndox ma rek nga daal di fab sa micro jox nit ki na ko waxal ma ak ñi ni ñu bëgg àdduna jamono bi ñu toll ñu wax lañ déggoon lañ déggoon ndax wér na wér ndax wérut ñu nett li te yow tam xamoo ci dara nga dem teg ko day indi ay jafe-jafe léeg-léeg loolu la sëriñ bi xam ba bind ko dañ la ko woon sax nga porte la ko bala nga dem waaw mi ngi fi tegee man la ci jox ndigal ma wootu fi taxawaay mag ña ci ndigalal sëriñ Muntaxa Basiru aynu raxma si nag moom yàgg na waaye ñu bari sax des nañ koo xam ndax naa ci at yi mu yàlla mu ñëw sama loxo rek laa ciy waxtaan ak yu bare bare bari waaye yàgg na fi loolu te ni duñ ko xam mooy ten bi ngay xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo ko tàmbali gasal boppam ci loxol boppam loolu fii rek la fi dese histoire bi nag muy tàmbalee ci benn saalum saalum boo xam ne wërë wërë wërë lëmoon la woon ñëw jublu woon ci moom demoon penku nag ñëw indi ko ndoxum sam-sam xamul lu mu ko yër muy ni ko ndoxum sam-sam jox ko ko nañ foofu la histoire bi commencé sëriñ bi nag bi mu ko joxee mm, ndoxum sam-sam yi nettali nag yoonu penku ak yooyu ndeysaan ci koo xamante ni bi diine rek la ñor mu daal di mm, loolu ndoxum sam-sam daal waaw ci loolu nag ci la waaj woon sax dem penku waaj na sëñ Bamba waaj na yoon dem penku ñu bari xamuñu ko takk ne bagage sam ñetti yoon waroon ñi muy àndal la yëpp waaye gàllankoori nasaraan bi te nangut a ñaan nasaraan bi loolu mooy sawa bi tax yoon ba sontiwul gannaaw bu dogalu yàlla mi dogal wéyee mbaam ndox moomee nag ñëw ba fii booba fii jumaa ji nekk këram la jumaa ji fi ne nekkul ci mpénc tey la ne ci mpénc waaye kër sëñ Tuubaa la nekk ci biir kër gi la ne ñu xamuñu ko waaw yoola mu daal ñëw ba fii ba fii jaar ko soxna Astu Gaawaan jaar ko soxna Musu Mbàkke gi ak yëpp ci kër kër gi moom dafa réyoon ba nga xam dafa dafa jéggi day lépp benn kër la ko defoon waaw ndax wax nañ ne fanweeri kees a ngi foon yoo xam ne yii ñaar fukki nekk ak juróom-ñett defoon nañ ko ci biir kon kon loo àll rek la woon waaw léegi nag mu ñëw ba fii mu mm, juulu penku fàkkal ko bopp wàkki ba mu xóot mu sotti ci ndox mi ndoxum sam-sam ma daal ci ciy jàppal boppam daal nañ ma wol Ibrahima sax la wax ñu ne teg mu ne Ibra Sarr Njaañ ñu naa ah, Ibra Sarr ñu dem woy Ibra Sarr mu ñëw mun ne ko damar ma ndox mii maa fi sotti sànq waaye ñaan naa ko sama borom ba may na ko mooy ndoxum sam-sam loolu mooy ëllëg bi Ibra Sarr daal di futtiku di gas boobu nag liggéeyub sëñ moom foo ko fekk day am jëwrin waaye nag ñëpp dañuy barkeelu nag comme ba fekk da ngay barkeelu waaye nag boo demee ba métti nag wa laa liggéey jot dañ la koy wàcce nag yow mi nga xam ne yow yaay ndey mbili yaay jëwrin ji dem nag liggéey ñoom ndax teen wax nañ ne gasañ ko ci ñaari ñaari ñetti at ñu ne mën na ñaari at ak genn wàll métti lool ndax boobu jamono yi xew yëpp amu xewul manaar lañ ko daan def def ay bant moo nekk saaru seel ba gasee fii gas fii dugal daal di cee jàpp jàll gas fii gas fii dugal loolu noonu xam loolu kenn xam ndiwul cent francs kenn xam soxla mu doon ci teen bu nga xamante ci yooyu jamono lu mu néew néew népp ëpp na fa ëpp na fa ñëre ñay waaw loolu dafa bari woon waaw moo tax euh, bii cent borom dogalee nag ci bëgg-bëggub sëriñ bi ñu dema dema dem ba mu jot ci nam ci war a jotee ndox mi bënn nag sëriñ bi daal di ñëwal boppam ñu kooku mu ñëwal boppam daal dindi kaala gi ci la bari ñu bari ñu ko fa fekkoon ca mag ña door a mas a gis sikkimu Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa amoon na sikkim bu baax sax ñu bari xamuñu ko woon daal di muuñ daal di as ndox mi ñett guux ñett guux daal raay ci xar kanam daal di lii laa ñaanoon ko yërmaan ak xettali jaam ñi rek daa ci yàlla may na ma ko waaw kon loolu la nit ñi war a xam yërmaane taxoon sëñ ba soo sëñ Tuubaa ñaan ko borom ak lu li jaam ñu ëllëg moo taxoon képp kuñ faatu ñëw bala ñu laa rob buñ la dugalee ci bàmmeel fab ndoxum ay nga sotti ci sa sa muy mujj ndox mu la laal wax nañ da nga am yërmaande suñu borom te doo gis malaaka ki mu wax ci biir bàmmeel waaw. mën nañoo jàpp ne ci taarix euh, sëriñ bi moo tàmbalee gasal boppam teen bi waaye du koo yëkkati woon teg ko ci loxo sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ. waaw sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ mooy sunu maam moo jur sama baay sëriñ Sarr baay sëriñ Sarr jur ma waaw loolu mooy sa mooy mooy départ fondation teen bi waaw bi mu noppee itam. bi sëriñ bi guuxee ba noppi da koo def nag teenub xéwlu boppam ak ku ko ci fekk nag moom la doon jëfandikoo ba bi mu demee njaareem ba bi mu demee njaareem tubaab bi yóbbu ko fa bi bi mu dellu si waatee jóge ci yéen jël delluwaat njaareem fii lañ dondoo roote si ndox mi kon foog ndox mi moom fonkoon na ko ndax xamoon na lan la la euh, mu nekk euh, bërëb boo xamante ne bu ñu tuddee aynu rahmati xel yu bëree baree bëri dee dem ci Cheikh Abdou Lahad lan mooy euh, maanaam liaison li lëkkale Cheikh Abdou Lahad ak kër gi di aynu rahmati waaw lëkkale gi moom yàgg ndax sëñ Tuubaa moom ku mu jur léppi alalam c'est alal la loolu mooy xaw li gën a gàtt waaye nag bi mu xalifa général la ci door a agsi na ndax fii moom ku nekk xalifa général yaa koy commandé loo koy commandé itam ki ñi ko sëñ Tuubaa teguñ seen loxo ñoo koy commandé gannaaw Cheikh Ibrahima Sarr ci Baye Sëñ Sarr ba ci sëñ Basiru Sarr jàmm sëñ ba ci man mi waa kër Cheikh Ibrahima Sarr rek lañuy ñuy doon sëñ Tuubaa moo sàkk woon loolu moo ko dénkaane woon nag kon loolu moo tax njaboot gi fonk guñ fonk sëriñ bi ak gëm guñ ko gëm ak warmaal guñ warmaal kàddoom duñ mooy loolu waaw ma toog man bañ woo ma téléphone ma coomox mux dama kayi wu sëñ Sidi Muxtaar ma ñëw a sëñ Sidi Mbàkke mi dajale ñëpp ne sëriñ Tuubaa wax na ne bisub tey caabi añu rahmati nañ ko jox Xalil Sarr mii waaw loolu leer la waaw boo duggee ci kër gi nga gis ci bunt bi nit ñaa ngi euh, taxaw di fàggu ci ndox mi waaye boo seetloo da ngay gis euh, dafa mel ne lu am ñaari barab yu ndox muy jóge benn bi du euh, teen boo xam ne boo ko gisee di nga xam ne lii lu yàgg la sant gi yàgg na nga gisaat beneen boo xam ne tabax bi moo gën a moderne moo gën a yees mel na ndox mi la ak la moo war a ñaari tabax ban ak ñaari tabax yi ban teen bi nekk suñ ginnaaw ak béej lii teen pind la da ngaa desee xam fa fee teen ba nekk fa lañ ko teggee boo kàmb la woon bu ci lii nokkul doo ngay daanu ci da nga xamul teen loolu la woon li ko waroon pind la tudd mooy pind bi nga xam ne mooy tax fii moom boo fi bëggoon a gas teen boo ko gasee kàmb doon boo fi def lu mel nii daanu ci mbaa keneen daanu ci waaw loolu mooy pind mooy tax boo tax wee di wëgg doo ci daanu noonu la woon léegi nag bi sama borom dogalee Cheikh Abdoulaye ñëw xam ne jamono day soppiku te des na ko méngale jamono doxinu jamono mu daal di woo sëriñ Bassirou Sarr jaamu sëriñ Tuubaa boobu moo fi nekk boobu fekk na bàyyi sëriñ Sarr sunu wayjur génn àddina ñu dox ko ko mu woo ko ci toabel boobu ñu ngi sañ ci toabel sañ ci bala tombeel mu ñëw suba teel fekk ko ci penc ma mu toog booba ci sump googu booba ay sump nekkoon foofu mu ne ko Bachirou maa leen woo ngir ngir mbirum ay nu raxmati sëñ Bass daal di génne lettre yi nga xam ne moom la sëñ Fallou Mbacke daan bind bind bàyyam ak lettre yi nga xam ne yëpp dafay doxoon wan ko sëñ Blaat bu mu jàng ba noppi defaat takkaat ko delluwaat ko ko ñu ko maa leen ko bëgg a soppat bëgg koo defaraat te ci seen loxo la ko sëñ Touba tegoon dëgg la nag sëñ Mor Diarra Sarr mi mooy mag kon kilif mooy kilifa gi waaye yow mii nag di yow laa def ngay jëwriñ ci yaa koy taxaw moo waaw loolu ko sëñ Baat wax maa ngi toog sant yàlla boobu ba léegi kay moom wax nag ne dara nag waru lent ndax la ca war lépp wax nañ ma ko fay naa ko muy fanweeri million ci yooyu jamono boobu ku ñuy wax Baba Jum moo jëlee woon travaux yi Sénégal ñu tuddee woon ko Sonafort booba ay yi xew yëpp xew ko Sonafort a xewoon. yële woon Afrique yëpp Senghor ne fi Senghor ko ko joxoon kon loolu yàgg na ñu ngi dëkk fii ci Daara Jolof jëm naam tuuti baabu Diouf xam naa ko bu baax. ñu jóge fa daal ñëw bët mu di indi matériel bi ñuy ñëw bi ñëwee dindi kii bi ñu machine bi ba machine bi réglé wu dañ ko samp ci digg bi daal di wàcce ñoom tegu ci suuf ñu laaj ndigal sëñ ñu joxe ndigal ñu démarré teen bii bënn nañ ko ba mu génn ndox te te wuñ kay ci gànnaaw bi lañ ko door a andale parce que moo nekkoon prothèse li ma pour dara bañ cee bay bañ a daanu mais nag biñ si yoree teew bi ba mu àgg ci biir fa ndox mi yem ba tegu toog bi ren nag moom mm, teen bi yaatu na yaatu nga xam ne ji pour taw bi ne ci rek il faut mu kàndang te loolu mën na indi danse il ñu sëkk ko il ñu suul suraat kàmb gi léegi. parce que noonu li ñu bëggoon noonu am nan ko teew bi dem na ba ba sës na léegi bu ñu démarré daa war a gas waaw ñoo ñu wax ko sëñ Ibrahima mu daal ne Atia Bachir maa jiite woon mbooloo mi ñu dem ci kàmb yi di yanu suuf di ko sëkk dañoo waxoon ne ñaari wala ñetti fan bi ñu koy à sept heures laa la wax bi ñu la jot kàmb gi fees na gaa ñu yuuxoo waaw kenn amul sago kenn rek naaj wu tàng jër nag. ñu ne fees na fees na fees na sëñ bees na bàyyi leen ñu dem ba neuf ci guddi ñu war a démarrer toit bii ñëw fekk fii booba mbaar lañ fa bii yëpp nag mbaar lañ def fii rek booba sëñ bas ne ci mag moom ñu toog fii mu ne ah sëñ bas da fii kat na loo xew ñaa mu ne noonu kat bi ñuy bi ñuy bàyyi dañoo dañoo bàyyi woon machine bi ngas ci kaw ndox ci suuf boo xam ne suuf bi am na ndox mais loola léegi gisatuñ ko loolu la ci laaj xaar wax nañ ko dakaar nag dakaar nag ñoom nee nañ comme yow la fi sëriñ bi te ngay wax ak moom loolu nga waxtaan teg sëriñ bi man mi la sëñ Bass yebal ma dem kër sëñ Abdoulaye ko ñu ne ma ñetti yëpp sëñ Bass ñëw fi xamuñu fu mu nekk <laughs> ah woon daan doy waar mais ko ma jot xaw ma kan la sax ci bëkk nii parce xam naa ko xam naa nit am ko ma jot ne ma nii ci ma geesu ko mu ne ma demal kër sëñ sooy wu sëñ Abdoulaye nga fa booba laa ko geesu gis ko booba laa ko noppee gis xaw mooy kanit nag ma dem kër sëñ Souhaïbou fekk ko sëñ Abdou Lahad la ci bi ñu ko ne ndawal sëñ Bassirou Sarr a ngi fi daal saas dafa daal di def li muy def fàggu ko duy benn li bu ci liisar jël sarbetam boobu nga xam ne mooy wert bi nga xam ne ku ko xamoon xamoon mu di ko gàccoo daal di ko ci rax daal ne na ñëw mu ñëw mun a ah xel yow lay bal si mën na ko waaw mu noo boo demee na ko ci sotti la fa newoon dana fa nekkaat ma ñëw jox ko butéel bi moo ne ñokkat ànd ak man ak tubaab bi sotti ko ci biir daal di ñëwaat ci mbaar mi toog même pas quinze minutes daal wax tubaab bi ne ko ah sëñ bi ndox mi ñëw ndox mi bari lool sax yàlla xam na loolu walaay asim waaw. maa di joxe ndigal ne kon nag mën nañoo gas moom ñaari laaj Dakar ndigal boobu ordre bépp foo mën a nekk ci Sénégal ordre bi lay jox nga taal machine bi ak bi koy fay Dakar lay bàyyi ko ñooy yoroon yàlla. sécurité bu mat ci li ñuy liggéeyee waaw. moo tax fu paane rek dañ bu dee pièce bu ñu war a indil mën a doon ordre yaa jóge Dakar indil la ko ndax daal la ko ca saasa. léegi nag ñu démarré démarré démarré démarré démarré démarré bi mu am ay juróom-benn juróomi fan juróom-benn fan juróom-ñaari fan ñu am ndox mu leer naññ. ñu daal dem wax ko Cheikh Abdoulaye mu laaj ko. ñim jabaloon ñu di ko defar ñu ne ko ndox mi moom sëñ bi bët bi moom moog bi fi nekkoon rek lañ jotaat ci suuf benn la waaw mais soo ko fee bàyyi parce que buñ jàllatee xëy na sax ñu jot leneen waaye bii moom bët bi fi newoon daal moom lan sama borom dajale mu ne leen ndax nab bi bari na ndax dana dana liñ liñ bëgg dana ko mën ñu ne ko dana ko mën teen boo xam ne barkeeru rek la du wëggul ay ay ay ay juróogul leneen kopp ndox ngay naan wala ngay amul litre yóbbu sa kër loolu kay sëñ baax na mu leen waaw gannaaw nee ngeen baax na baax rek lañu doon seet kon kon nañ ko bàyyi foofu kon baax na ci la sëñ Abdoulaye daal defee équipement bii nag ñu defal ko CRD buñ ko duyee ba pare mu gaaw lool mën a sotti ko ci lañ ñaar fukki ba ngeen ko war a gis ko xaw ma war gun ngeen da ngeen koy baax ma nga ne ñaar juróom-ñett la ñun méngale ko ak doxinu sam-sam souterrain bii ñu ko def nii ñu ko def nii sama néeg nga ne ci suuf ñu def ko souterrain loolu noonu sam sam prend sam-sam lañ ko jëlee waaw Samson noonu la mel noonu bari xamuñu ko waaw prend Samson lañ jaar delloo si ko waaw bi loolu amee nag sëñ bi daal di wax aatu nag ne ko nag gannaaw ay gën dañ fi jur dañu bàyyi ko fu ne te aatu moom yàlla mayoon na ko ndax déggoon na tubaab bu baax te bari na lum lum lum jàngoon lum ci jàngul it ñi mu jàngoon nañ ko maanaam laa ngi àdduna bépp moom borom ispitara xe fekk leen ci nekk dañ ko maîtriser nañ ko war a maîtriser boole ko taalibe gu mat sëkk waaw dana la romb sal maxtu mooy laxasaayu di waaxu te langue ba nga gën a naw ci àddina mooy allemagne wala mooy mooy mooy mooy grec wala mooy mooy mooy mooy chinois boo ko làkk ñu tontu la ko waaw mel na dañ ko nàmp loolu yàlla def na ko ci eh, barkeb sëñ Touba ci waa Hizbut Tarqiyyah te seen seen njàng wooyu la muy réy réy réy da leen doon di gëm sëñ Touba da tax ñu mën a tarbiye seen bopp itam koo ci woowante bu sukkee fii da ngay tudd da ngay tudd yàlla te làkk na kayit yu kenn ku ne di làkk ba war a mën a liggéeyal addina waaw loolu ci baaxu sëriñ bay fay aar ñoo defar lii bi ko defee nag boo demee français nga fa anglais nga fa defoon nañ sax partie arabe nga xam ne xam la rek li ngay laaj léegi programme teen bi nga xam ne koo xam ne ñëw nga te mm, laajoo laaj bu leer am nga droit porté la ko rek boo demee daal di ko xool su bopp waaw loolu lañ ci jublu woon boobu waaw ñi ngi ñi ngi gis nit yu bari fu ne la ñuy jógee yor ay butéel di jël si ci ndox mi dafa am secret bu ci nekk dafa am baatin wala dafa am loo xamante ni ñi koy eh, jël si fii dañ cee ko cee xam waaw loolu Serigne ma ci bopp moo ko digle woon ñaan naa ko sans borom ngir yërmaande ak xeet lu xeetali jàmm ñi loolu kay sëñ bi doy na yërmaande àddina xeetali ko ëllëg nag xeetali ko barsàq la foofu kay lañ gën bëgg ko la xeetali maa wax la ne maa ngi waxoon nañ te ci làmmiñu sëñ Tuubaa néew buñ ko sotti nga texe néew buñ ko sotti nga texe moo tax ñu jël burti li ci ëpp yi doonul lu ñuy naanee ci armée lañ ko jëmee da nga ci xamul loolu waaw néew bu fa ñëw dañ lay wax ne demal wuti ndox ay ramati nga ñëw jox la butéel boo dugalee néew bi ci suba biir ba noppi bala nga cee def ay ñax yeeg yooyu ñu ne ko maasale ci percal bi ngay sotti ndox mi lépp yaram bi tooy sëñ bi moo wax ne kuñ ko def suñu borom dana la def la yërmande ci biir bàmmeel te doo gis malaaka mu weex mukk loolu moom lañ ci gën a dabu li gis nag saafara na jàngoro bu nekk loo siwaa min la wax waroon na si min xurama wa siwan warxama kon loolu mag ñi amul menn mag xanaa léegi la ñàkk ñàkk xam waaye amul menn mag ci magi Serigne Touba moo xam ne daa nga dem këram te doo fekk burdel bu def ay rahmati mu dese gox ñetti góob bu xëyee wala mu dese wala ko am jàngoro ci kër gi mu daal la ci raay daawuñu ko sangu dañuy diw rek nga gox ñetti gox ñu diw la ci suñu borom defal la afiya te loola tey la ko sa borom gën a wàcce ci jamono bi ñu toll kon jamono bii nga xam ne lu ne nga xew lu ne ngi xew ci jamono yi feebar teel ay réew moo door door door a mel ne sax teel a ko sëriñ bi doon sàkku la jàmm loolu lu ñu war a xam la te kenn jaayu ko nag man la ko sëñ Tuubaa teg ci sama loxo ma teg ko ci sama loxo waa kër ñi fi nekk samay moo tax ma le am ngeen sax ñëw fekk ma yëngu waaw feex la waaw kon loolu moo waraloon nag kuy ñëw indi butéel booy dem ñu jox la bis bu na a leen ku ñëw waa ba dellu sa waa kër jox leen sëriñ bu lu ndoxum ay rëmati da ngaa sonal sa bopp jaaxal leen waaye mën nga ko jënd ci bitig ba loolu foo dem am na fa ay rahmati rek am Touba men ndox la ci àdduna bépp Sénégal la am dëkk bu ñuy wax am ay rahmati la ci gannaaw ko sëñ Saliou Mbacké gii sëñ Bamba ko gasaral boppam ba loxoom jeex mu door woo Ibra Sarr taalibeem ba defar ko xaratu boppam wala réew wa doy loo ko ci nekk amul bakkaar koy gas kon nañ ma wal Ibra Sarr ay rahmati comme bakkaar mënu ko woon a gas moo tax Ibra Sarr la woowoon ko ko loolu moo doon cosaanu ay rahmati ba fii nu toll nag lu ci waay saafara wu te posté fu te doggu ca suñu borom saafara la ko maa wax loolu te kenn du ko jaay nag jaay loowu nu ko te nu barkeeloo sëñ Tuubaa ko moom taalibi yi ak kóllëre yi ak ñi ko doyoor yóru moom te yaakaar ko ngir cofeel di morom mu def ko ci mu def ko fi ku joxe juróom yaa xam ku joxe fukk yaa xam ku joxe ñaar téeméer yaa xam ku joxe nag ku joxe millions yi yaa xam kenn ku ne yaa xam la nga bëgg ak lam la jaral loolu suñu nukk ci nun waaye nun daal bu ñu daa bëgg barkeel ndox ñu tax nga jox la boo noppee boo saree ñaar dërëm ñu la waxoon baax na teg fee ca gaal ga boo joxee junni ñu teg fee boo nee million yi ñu xam def ci gaal gi waaye yaa xam ne li la ndox mi jaral ak sa taw ak sa jàngoor li mu la jaral ak sa aju addina li mu la jaral aju bu ne ci addina moom mën na ko faj lu ne sunu borom atte ko ci waaw jërëjëf jërëjëf leeral yi am na solo xam naa ne mbokk bari na mbokki téléspectateurs yoo xam ne ñu ngi ñuy topp eh, li ñu xam tey ci ndox mi ak barab bii ñu nekk di ay nu raxmat yi xamuñu ko ci woon ba ci ñun ñii sax amaana tey bari na ci loo xamante ni leer nañu ci eh, du ñàkk dinañ ànd ak Issa dugg ci biir barab bi comme ni ko sëriñ bi waxee eh, ñi ngi gis fi li nga xamante ni moom mooy kayit gim ñu doon wax léegi di loo xamante ni sëriñ Mountakha Mbacké Bachir mu fi toog Cheikhul Khadim maamam moo ko bind jox ko ko ngir firndeel ni moom sëriñ Khalilou Sarr moom la ñu dénk kër gi Eh, nga xamante ni moom moo di Aïnou Rahmaty bég nañu am nañu tawféexu ñëw janoog moom ngir mu eh, digtal ñu taarixu kër gi ñu xamaat fi loo xam ne xamuñu ko fi woon màggalu Tuuba la eh, mënuñu axee na ñàkkul nga am ay kàddu yoo bëgg a dénk mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi yi nga xamante ne ñoo ngi ci yoon bi fas yéene ñëw fi Touba. waaw loolu moom mooy li ñu daan dénkaane rek Touba pas-pas moo fi jëm si ànd ak yëpp a sëkk ak wéy ci ndigal moytu lépp lu nga xamante ni dafa mën a biddi bakkaar boo fi ñëwat nga jël fi yàlla ji mat sëkk ndax lool rekk fi nekk loolu la fi sëriñ bi doon wulti moom la fi samp moom la fi bàyyi lu fay wut daal wut ko ci yàlla ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko ci barke Sëriñ Tuubaa mën nga cee jot waaye ñu wat ndik ay caaxaan ak doxin woo xam ne yu jamono fi indi ak doxin woo nga xamante mën naa indi lu jëm ci bakkaar bakkaar day indi bekkoor yàlla na ci yàlla musal lu bari ci doomu aadama lay tàmbalee bu baree bàkkaar sax jëmmam commencé bekkoor waxuma laa nga def ko jëm réew ba yàq réew ma ci bàkkaar day jafee defaraat lool kon nanu góorgóorlu waat te yeesaat sunu pas-pas te wér sunu bopp ci yàlla mi nga xam ne moom moom lépp te yaakaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci royteef gi nga xam ne moom lay sunu borom digle te fab sunu sëñ Bàmba muy sunu kilifa du si ilimaan ñu topp ci gannaawam di wéy ndigal bàyyi tere loolu koo ko def ku nekk la nga bëgg tey ak mën nga koo am te doo ci sonn waaw kon loolu maa ngi koy digal ñëpp li ci topp mooy ay rahmati sëñ Tuubaa ba mu koy sàkku sàkkul ko boppam daf ko sàkkuloon njaboot waaye daf ko sàkkuloon taalibe yi war ngeen a xam lan mooy ay rahmati ku ñëw Tuubaa da ngay siyaare sab sëriñ demal jumaa ji siyaare ji ji sëñ sëñ Bamba ndax mooy mooy yaakaar ñëpp xool jumaa ja boo fa jógee demal Baqiya demal Usnul Mahab mooy armeel yu jëkk yi siyaare mag nga ñaan ci seen barke boo fa jógee nag wutul ay rahmati boo fa siyaaree ni góox fa ñetti góox wut fa sa litre ndox yóbbaale bu la neexee bul jàdd fenn wutal sa kër maa wax loolu sox ba tàkk na ay fajona waaye ñëw Touba ba dem demoo añ rahmati ah naanoo ndoxum añ rahmati loolu daal sëñ bi moom ëpp def la moom ndax ku ko def ko nekk manqué nga sox yoon ci sëriñ bi manqué nga càkkuteel bi sëriñ bi doon sàkku di ko yéene di la ko yéene di ko yéene ñëpp motaloo ko yow tam yomboon lool ku ñëw Touba daal maa ngi lay dénk loo mën a jàpp ak foo mën a nekk gannaaw boo siyaaree sa sëriñ sa wasila ndax mooy buntu bi demal ki sëriñ Touba siyaare ko ci jumaa ja boo fa jógee boo ko manee demal Bakke ak Osnal Mahab siyaare ñu fa tëdd te nag xam ne barab boobee nag sa baraba nga fa ndax yaa yaa xam damaa yaakaar sëriñ Touba kon boo fi bàyyi ko ña nga ña ña la wuutu daa ñëw la fa indi la fa kon war nga ko may xel bu baax boo fa jógee ñëwal ay nu rahmati nag naan ci ay nu rahmati day bët bi lañ koy tekkee waaye alxuraan na ko wax mas naa cee wax xibaar bu histoire bu yaatu parce que kenn xamu ko aynu doo man ne dex la doo mën ne doo mën ne teen la doo man ne doo mën ne géej la yooyu yëpp te firiwu firiwu ko ci arab alxuraan daal moo ko wax ñu tuddee ko bëtub ndox ci lañ mën a wax bëtub ndox nag kenn xamul bëtub ndox ban ndox la waaw sëriñ bi nag moo ko ñaan boppam ba suñu borom may ko ko kon loolu du lu ñuy sori ndax euh, li sëriñ bi wax lépp di ko tënk euh, neexu la neexu la nett li waaye nag fexe ba mën caa jariñu ca maanaam yu moo la mooy la ci am solo waaw kon daal ay rahmati moom bëtu yërmaande la ko sëñ Tuubaa wooye moom la ko moom la ko moom la ko ñaane moom lañ ko wuyoo yërmaande jot yàlla na suñu borom tabar tabar ci mboolem taal bii tabar ci ñu ci lislaam yëpp tabar ci adduna bépp ndax yërmaande rek yërmaande moo am solo moo am solo fii moo am solo feneen maa teg laa daara laaxira waaye wala tan sa nasibika ma dunya xam gis nañ ko xam nañ ko waaw suñu borom da nga koy sàkku ci moom ci baax ci yërmaande ci jàmm yàlla waaye bu tax na nga sàggane la nga xam ne moom mën naa dox sa digganteeg soxlay addina nga mën ko war ko caa mën a ko fàggu da yàlla nag mooy motale mooy joxe yàlla nu jox nag la gën ci nun te sàmmal na ko ban njëriñoo ko ci barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ki doon wax ak yéen nag mooy Cheikh Ibrahima Sarr Khalil xalifa bàyyi Serigne Sarr muxu-mux ibnu Cheikh Ibrahima Sarr jasaaka Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ man nag Serigne Bassirou Mbacke lañ ma séddee moomu tuddul jàng naa nag fu bari bi may jeexal sëñ Mourou Lamine Diop Dagana mi sëñ Tuubaa jàngal la ma booleloon ngir ma bëgg ma barkeeloo ci may ñii mu sëñ Mourou Lamine Diop mu daga Dagana mujj a jàngal ci ndigalal sëñ Bachirou nag ñu jàngalanu dañuy def noo xam ne jàng bi moom bu ñu ko jàngee ba def dañ koy teg fii ci ci saali ba rek ndax dafa gën a gaaw waaw bourse yi fi Momar dëkkee ni ma juróom-ñeenti bourse ci Sénégal booba Senghor ni mu euh, Sarr sant nañ bu baax euh, ni ma ko waxee tawféex la ñu ñëw fekk ko tey fii ci kër gi nga xamante ni moom moo di Aynu Rahmati muy Serigne Khalil Sarr di xalifa Baye euh, Baye Serigne Sarr moom moom Serigne Ibrahima Sarr Njaañ mi ngi noonu xam naa dañuy ànd ak Issa mu dugal ñu ci biir kër gi won ñu visite bi ñu xool li nga xamante ni moom moo ne ci kër gi yëpp teen beeg pind bi ñu teg fi wëp robinet yi wër fon forage bi waaw ak fi nit ñi roote ndox mi yooyu yëpp ñu daal di koy gis digtal ko téléspectateurs yi duñ tàggoog yéen topp leen ñu euh, tey ajuma la topp leen ñu ci gaaw gi dibéer gi ba ci altine ji nga xamante ni mooy doon bisu màggal ak Tuubaa gi di bisu safar di bisu cant dara du leen ci ëpp bu soobee yàlla jërëjëf. ولا جمع Eh, Cheikh Isa ñi ak ki nga xamante ni moom moo di eh, Touba Sarr moom itam di jëwriñ ci kër gi eh, ni ko suñu kilifa gi doon waxee sànq lii mooy pind bi nga xamante ni moom la ñu doon expliqué dañ koy bàyyi moom mu giddañu ci visite bi wan ñu yi nga xamante ni moom moo ne ci biir kër gi sëñ Touba ñu ngi leen jërëjëf ñu ngi nuyu mbokk yëpp rek di leen siyaare bu baax di rafetlu bu baax liggéey bi nga xam ne sett yi mu ngi ko def ci magal gi ngir gunge ñi nga xam ne ñoom ñooy téléspectateurs yi nga xam ne ñooy teew di teewlu mu mel fii nga xam ne fi la ñu nekk moom mooy Aynu Rahmati mu bii ñu jàkkaar moom moo nekkoon pindub teen bi ginnaaw bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad liggéey na bi bañ defar ko ba modernisé mi ngi jamono ci la ñu indi pind bi fii ngir ko barkeeloo waaye pind bi nekkul woon fii pind bi moo tiimoon teen bi bi mooy fee machine bi nekk moom mooy mooy mooy teen bi loolu Cheikh Abdoul Ahad liggéey ba mi ngi jamono nag la jël pind bi indi ko fii ngir di ko barkeeloo ngir ku ñëw xam ne lii mooy ci teen bi waaw moo ci moo ci sànni loolu moo nekkoon li nga xam ne mooy moo ci sànni boo ko defee képp koo xam ne fi nga ñëw fee ngay ñëw bu defee mën na gis li nga xam ne moo jeexit yi boo ko jeexit yi nga xam ne moo jeexit teen bi jeexit yi euh, lii firnde lay doon ci nga xam ne lii ab teen la woon jamono moo dox ba nga ne mhm. Cheikh Abdou Lahad ñëw ci fitum ba ak jàmbaar ja ak yitte ju kaw ja def ko nii ba nga xam ne ku ñëw la nga xam ne lii def nañ ci yitte def nañ ci li nga xam ne moom la laaj ba mu mel nii kon bu ko defee bu ko gisee rek ñu xam ne lii mooy cislaay li nga xam ne moom mooy teen bi mooy teen bi isa mi mooy pind bi nga xamante ni moom moo tiimoon euh, teen bi euh, bu ñu fiy jógee maanaam ngem lii mooy cosaan li gis nañ ko ba noppi dañ dem ñu xool ni ko euh, ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Abdou Lahad doonoon xalifab Serigne Touba ni mu ko moderniser indi ko yeesal ko ba mu méngoo ak jamono ba gën a neex a jëfandikoo